dama leen bàyyi ci biir rek. mu ngi noonu nag léegi nag bàyyi ci biir boobu nag te xam ne ñoom ay fen la léegi nag par force nag mu neex mu naqare dafa jot ci taabal nga ne leen yaa ngi may dégg. terrain bi soxlawuma ko dama bëgg ngeen jox ma ma tabax pour sama famille. attends attends moi je moi xa nitu lan lañu. mooy Ngom xaw ma ko. yaa Mor Ngom. Mor Ngom xam naa ko Farba Ngom xam y' a Ahmed Khalifa il y' a Mambo Diaw 2. y' a Mambo Diaw on s'est deux il y' a Antoine il y' a ministre des finances ADD. il y a je ne non non ministre des Finances, je ne sais pas monsieur Diop je ne sais pas il y a Pape Samba Diop. Mm-hmm, Peter La commandant brimofal mm-hmm. il y a Bougan Gaitani, il y a maître Abdou euh, il y a maître Abdou Djeylani yaa Mamadou Diallo yaa Kriku Abdou Mbow yaa Aly Ngouille Ndiaye. kon euh, Buga kon Buga xam nga xam nga. au xam nga xam nga man Bougane waxoon naa leen am na lu muy liggéey gouvernement bi. xam nga waxoon naa la moo tax ma ne la seen nguur dina daan te su ma ñëwee liste bi yow laa koy dénk nga teel ma ko ba au bon loo am ci secret dama lay wax. dama koy yóbbu dama ko bàyyi sax ñuy vérifier di ko lépp loo am ci secret mooy sa ngànnaay yow suñ la bëggee <laughs> sànq wala ñu bëgg laa rey man xam naa ne suñu mujjeek yow dañ lay bëgg a rey mun nañ laa mun nañ laa pikiir pikiir boo xam ne di nga dem trois mois deux mois nga jaaree fa faatu mun nañ la def leneen ak leneen te man dama am intérêt pour sàmm la parce que amoo benn mbokk tey man maa fi sa mbokk parce que sa papa xamul aduna bi amul doole xamul aduna bi lumuy lumuy riir lumuy muy doxee lu sa yaay génn na aduna sa frère ci man la nekk ndax man la yaakaar aduna ak àllaaxira te xamuñ aduna nu muy kon kenn nga am ku jàmbaarte koo xam ne mun na laa garder mun na laa jàppale mooy man dafa am ñuy ñëw ma bàyyi la kon après ñu oo tontuwaat ji ñu duñ sax ay nit mhm. gis nga bugaan mu ngi liggéey ak ñoom ci suuf gis nga loolu ah, waaw ba pare ba pare mel ni kuy kuy contre au euh, pouvoir bi fekk mu ngi liggéey ak ñoom ci suuf. contre que le mec saa yu demee point yu muy am yëpp da koy sewtiwaat. waaw. ay on lui donne de l'argent pour que mu liggéey day liggéey. day def liggéeyam. nu mu ñoom ñoo ko ay complice la lobby la lobby la ci biir lobby yi. ñu ngi noonu. Hmm. ñun ñu ay doomu xaraam moo tax ma ne xam naa lu bëri te des fois dama leen koy wax. genre hmm. c'est trop xam naa lu bëri. mu ngi noonu nag léegi nag loolu nga xam yo da ngay nekk innocent ci kanam seen kanam waaye léegi léegi. fëggal taabal loolu loolu loolu loolu loolu laay joué. te hmm. pourtant ci innocent boobu nag ci lay dox ñu jàppee ma dof na ku nekk di ñëw ku nekk di ma bàyyi leen mais ñii de seen carte sur table jeex na. waaw lépp ñii ñii ñii lu ñu doon def yëpp jeex na. parce que suñ léegi on va jouer carte sur table. léegi suñ xamee ne yow. yeewu nga rek amatul amatul amatul neexal amatul ay neexal nekk fi di yaru yaru wala di wane ne dama yaru wala innocent alors que loolu yëpp gëwuma ci dara ben doma ah dañuy jël nit ñi. am naa buy dox comme ñom ñom ñom ñep ñun ñëpp ay ay affaire yaru yaru fi nek nak melnu ko xamul dara alors